nuux sax na ci aw nitam diir bu yàgg di leen woo guddeeg bëccëg di leen woo ci nëbbu akuk feeñ léegléeg mu taxaw ci pénc yi wax ci ngénte yëg dëj yi léeg-léeg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñoom ci biir néegam léeg itam mu fekk kilifa ci biir néegam mu waxtaan ak moom léeg-léeg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine wante taxul daal ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda moo tax daan nañu ko ca dóor dóor yu metti moo taxit kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom ndax yonent yàlla nuux dafa nekkoon ko gudd fan lool su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex mag ña fa doon dund ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu baay la woon suñu baay ya dem nanu mook ñun la tey ñun ñu ngi nii màggat nanu moom mu ngi nii màggatul dara jotu ko léegi nag lim bëgg moo di ne diine suñu baay yeeg suñu maam yi te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp kum ci taxawal di wax soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suuf wala nga dóor ko yet kii daal du ku ñuy déglu kilifa guy génn àdduna lool ngay dénk say doom yonent yàlla nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxe na leen ak ngëm ñooñu rekk koy déglu te bariwuñu borom bi subhanahu wa taala di wax yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la waa màkka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonent yàlla nuh ndax yonent yàlla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doyadi ñi ko topp daal amuñu benn fulla amuñu benn maanaa ci suñu société te itam moom su fekkente ne yàllaa ko yónni ak moom ni mu doyadee yàlla yónni ko waxul dëgg yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sell malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñoo gëm waxam dañu foog ne kay dafa dof waaw dañu foog ne dafa dof moo tax yàlla wax yonent yàlla muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qaalu saaxirun aw majnun ataw atawaasaw bihi bal hum qawmun taaxuun kon nga gis ne yonent yàlla nuux عليه السلام لولاكو او نيتام فاي يالا نيتام يوني وون نين يورنت يالا نوح تي او نيتام مو نيلن جامو لين سين بوروم داخ امول بن بور بودول موم خانا دو نين راغال سين بوروم واي يالا نينا وقال الملأ الذين كفروا من قول من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يننتي على النوحية تمودي كليفية واخننو أك نوح di kii di nit njaay rekk la mook ñu ne yem dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu te kat du ku ñuy digal nag ñuy def ndax ñu ñun ay nit ñu am maanaa yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka kii daal dañu foog ne dafa dof kon nan ko mu muñandi ko rekk waaye yonent yàlla nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu ma lay nii ñu may ñàkkale fayda mu mel nii soo demee ci suuratu Huud yàllaa ngi nettali jolof bi nga xam ne dox na ci diggante noox ak kilifa yooyu nga xam ne weddi nanu ko te bokk ci aw nitam ndax yonent yàlla nuux dafa waxe wax bu kawe ak ñoom wax boo xamante ni waroon na def ci ñoom ak ngëm waroon leen a fàttali yàlla ñoom ñu wax wax bu suufee boo xam ne dafa tegu rekk ci neen ak i bebent wax boo xam ne dafa tegu ci mbewte ak réer mu mel ni yëjj bi ñu doon yëjj noox ak ñi ko topp e, nekk na itam lu metti woon yonent yàlla noox ndax yonent yi fi jiitu woon yépp daanaka ñi ñàkkoon dara ja te seen poche di diisul ñoo ëppoon ci seeni mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg la e, ñu ñàkk ña rek nga fay fekk soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diini leen fay wax eh, ñu ñàkk solo ñi rek nga fay fekk maanaam ci wàllu wërsëg waaw eh, tabaarakallaahu suñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ni léeg-léeg nit romb la mbubbam woyof lool fekk mbubb rek la woyof le léeg-léeg itam nit romb la ak mbubb mu diis te rafet fekk mbubb rek la rafet le ko defee yàlla moom doo ko nattu doo nattu yàlla nga koy seet ci mbubb mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet yàlla ci xool nga koy xool mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja may leen àdduna daanaka ñooy gën a e, woyefal ndigalu yàlla ñoo koy gën a ñàkkal fayda ñoo koy tabarkàlla gën a wan gannaaw ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabaarkàlla cërëm moo taxoon ñee nag ne ko du ñu la mën a gëm du ñu mën a ànd ak yow feek yaa ngi ànd ak nit ñu di ñii loolu la alquran wax ni fa qaala almalau alladina kafaruhu kafaru min qawmihi ma naraaka illa basharan illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم yonent النوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bokk ciw nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis nañ ni nit nga te ñi la topp ci ñun mooy ñi gën a doy di te ñàkk fayda ñun daal duñu nangu mukk ngay am ngënit ci suñu kaw ñun daal dañu foog ne waxuloo dëgg dangay ngay fen yonent yàlla nu wax ne leen man de yàlla ma yónni ma di yërmande ci yéen mu jox ma lay yu wér péng waaw yéen nag sañ ngeen a yàlla sañ ngeen a gëmm gëmmulu silmaxa maxa silmaxalu lu tax ngir bañ a nangu dëgg gi su ngeen contrer yàlla bañ koo topp yéen a xam waaye man daal li ma yàlla santoon wax naa ko mu ne leen wa yaa qawm laa asalukum alayhi maalan in ajriya illa allah wa ma ana bi taaridi alladina amanu innahum mulaaqu rabbihim walakinni araakum qawman tajhaluun mu ne leen yéen sama nit woote bii ma leen di woo jëme leen ci yàlla soxlawuma ngeen fay ma ci soxlawuma ci soldu waaw waaw moo tax képp koy woote jëme ci yàlla su fekkent ne yaa ngi ci seet dërëm bañ la cay jox ah teguwuloo ca yoon wa nga xamante ni moom la yonent yi tegu woon teguwuloo itam ca yoon wa nga xam ni moom la boroom xam-xam yi tegu woon ndax boroom xam-xam yi ñoom ñoo donn yonent yi te yonent yi ku mës ñëw danga naan maa ngi woote rek te yàlla tax soxlawuma ci jërëjëf soxlawuma ci itam dërëm bu ngeen may jox wa tax nuux ne leen man kat woo woo bii ma leen di woo soxlawuma ci sold waaw laa asalukum alayhi maalan in ajriya illa ala allah payu ëllëg moom ma gënal sama soldu maa ngi koy xaar ëllëg ca yàlla waaye fii ci àdduna soxlawu ma ku ma ci jox dërëm te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dàq ñii nga xamante ni gëm nanu ma gëm yàlla ànd ak moom ndax ñoom bu ëllëgee daneen dajeek seen boroom te kat gis naa ne yéen ñii da ngeen a réer mu ne leen wa yaa man yansuruni min allah إن طردتهم أفلا تذكرون وأين بعدين مدغلي كي مصيبة وما دقني لطخ نخبر مي دارا جنگن بعدين جمع عندك من واو بكر بابو بو اللعي كان ماما يجابلة سما دين تك سما برام سما كده الله واو ولا أقول لكم عندي خذائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا allahu aalamu bi ma fi am anfusihim inni idan la min alzalimin mu ne leen du ma sampal sama bopp nag daraja ba wax leen ne ma moom magasin asamaan yéeg yu suuf yi magasin yàlla yu rëy yooyu du ma wutal sama bopp daraja bëggu tagg ba tax ma ne leen magasin yàlla yi maa yor caabi ji déedéet xaw ma itam ci ëllëg dara yàlla xam kumpa man xaw ma ci ëllëg dara jaam laa rek duma leen wax itam ne malaaka laa nit rekk laa waaw kon nag man daal li ma bëgg moo di ñu ànd jaamu yàlla ñu ànd wéetal ko te xam ne loolu mooy suñ sauvetage loolu mooy tax yàlla dëppook ñun te yàlla ku mu dëppool teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المذعومة nii la ñu continuer ci mbewte ak ndëngte di ko sonal wax nañ ne daan na génn ci mbedd mi ñu dóor ko ba mu daanu ñu lëmas ko sànni waaye taxul rekk mu découragé benn yoon yonent yàlla nuux dem neen ba may ko soxna gannaaw ba ñu lottee ci moom pour na soxna si yàq message am waaw léeg-léeg noonu yi xeex lislaam dañ koy def bu ñu la xoolee barab bu ne xamuñu fu ñu lay jaar léeg ñu boole la ak jigéen ju la yàqal waaw may neen ko soxna sax pour jéem a yàq risaale bi ko yàlla jox moo tax yàlla ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا wala yaxuta wa yaxuqa wa nasra yàlla nee na pexe nanu nee na ay pexe yu rëy pour yàqal yonent yàlla noox waaye pexe mu ñu jël rek ma yàq ko nee na ñoom amoon nañu ay yàlla yu ñu daan jaamu yàlla yooyu moo di wud ak suwaax ak yaxuuta ak yaxuqa ak nasra mu toll ci juróomi xërëm yoo xam ne dañu ko daan jaamu wax nañ ci histoire ni wudd mi ak suwaa ak yaxuut ak yaxuq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon nit ñu baax lañu woon yoo xam ne e, dañu selloon bi ñu génnee àdduna nag ña ñu bokkaloon jamono am ci ñoom cofeel te boobu photo amul appareil yu ñuy téléviser nit pour mën a denc ay filmam amul li amoon moo di xool jëmmu nit ki tabax ko walla nga yett ko ñu tabax nag seeni jëmm di dem ci barab ya ñu ko denc di leen ziyaara ba ñu ko defee nag ay at ñu mujjee ñëw xamuñu woon philosophie bi tax ñu tabax jëmm yooyu ñoom nag ñu faral nag ñu faf ci pexem seytaane seytaane yakkiwal leen ne ñii ñoo di yàlla yi seeni maam daan jaamu ñu mujj nag daan ko jaamu bi ñu koy jaamu nag di ko jaamu ba mu nekk aada bu sax ci ñoom ci la yàlla yebal yonent yàlla nuux waaye neneen yàlla yooyu moo di wadd ak suwa ak yaxuusa ak yaxuq ak nasra moo taxoon ñoom ñu ne kon nag bu leen bàyyi seen yàlla yi bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di wadd ak suwa ak yaxuusa ak yaxuq ak nasra moo tax ñu mujj tëkku yonent yàlla nuux ne ko la in lam yaa nuuxu la takunanna min al marjumin ñu ne ko soo bàyyiwul sa woote bi dañu la jël yeew la ba nga ne ngodd ñu woo nit ñépp ku ne jël xeer di la sànni ba ba nga ba ba ngay faatu waaye yonent yàlla nuux tabaarakallahu mbokk yi bàyyiwul woote bi ndax woote na lu tolloog junni at yu manqué juróom fukk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 mbokki jullit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak i saxaabam dellu neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaan ci istuwaaru sayiduna nuux alayhi salaam waxoon nañ leen ne yonent la bu nga xam ne bokk na ci yonent yi yàlla gën a gërëm ndax seenug muñ te yàlla bëgg na juróom yàlla bëgg na way rafetal ñi yàlla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuux nag di taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jàmmu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaxuus ak yaxuuq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalibe am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fàttaliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenuk mbaax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem seytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jàmmu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yàlla nuh yag ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana dénk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر moo tax ñu yàlla ne pex fexe nanu pexe mu rëy ba daan nañ wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne eh, la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppi ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ continué nunu ñoom waa kër nuux ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nu tëkku nuux ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi alquran ne qaalu la in lam tantahi yaa nuuxu la takunanna min almarjumin yàlla nee na nitu nuux ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay caddo wax nañu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gi ngay woote danañu la jam ba nga dee moo tax ñu ne wa amama hada tughyaanu alfajir min qawmi nuux كان لا بد له أن يلجأ إلى الله القوي العذيب ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة qaala rabbi inna qawmi kaddabuuni faftax bayni wa baynahum fatxan wa najjini wa man maciya min almuminin ñu ne yonent yàlla nuux ba mu jaaxle ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko bunt bu mu mucce looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi nga ma yónni ci ñoom ñoom de kaddabu ni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo kon nag faftax bayni wa baynahum fatxan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom su ko defee nga musal ma maag ku ma àndal ci ñi ma gëm moo tax ñu ne lamma taala laylu zaalim wa danna annaasu anna subha laysa bi qarib wa lajja alkaafiruuna fi tuxyaanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamante ni lëndëmu guddi kéeféer kukk na ci nit ñi ba nit ñi foog ne ba ñu foog ne suba sax dootul ñëwati yéeféer yi lakkal huit yonent yàlla noox ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér foofu nag la yonent yàlla noox tiitee ci ne ñii ma fi jot a am ci jullit te bariwuñu su ma leen fi bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee ci wetu yéeféer yi danañu yàq seen paspas pas ba ngëm gi ñu jotoon a am sax rëcc leen loola taxoon nag dënnam xat mu amuk jaaxle daldi wéeru ci boroomam ne ko yàlla rabbi yow sama boroom inni man kat daawtu qawmi woo naa sama nit laylan guddi wa naharan ak bëccëg guddi gu ne maa ngi taxaw di woote gàmmu naa conférence na fu ne taxaw naa fa wax waaye fa lam yadidhum dolliwu ducaa iya samay waaraate illaa firaaran lu dul ñu gën ma daw bis bi ma leen gën a waar ci leen ma gën a daw ci leen ma gën a jéppi wa inni man kullama dacawtuhum jamono bu ma leen woowee li taxfira lahum pour nga jéggal leen jacalu ñu def asaabiahum seeni baaraam fi aadaanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baaraam def ci seeni nopp muuroo seeni yére de jërlu rëy pour déglu ma waaw ki ngay waxal nag mu jëli baaraamam def ci noppam muuroo ay yéreem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ koo ko xamal ni foofu la ak kéeféer yam foofu la ak mbon yam moo taxoon nag yonent yàlla noox ne yàlla kon bi yow sama boroom la tadar ala al ardi min al kaafirina dayyaara kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm moo tax mu ne ko laa tadar bul bàyyi alal ard ci kaw suuf minal kaafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu du fi bàyyi day yaaran kenn ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins Iblis dafa am ay taalubeem ci jinne yi waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi waaw moo tax ñu bari ne ibliis du dugg ndakaaru bu yemee jam ñaajo rekk waññeeku lu tax ndax formé na fi ay taalubeem ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rekk gàllankoor lislaam bi waaw gàllankoor lislaam bi fu dëgg taxaw ñu dindi ko tegi caaxaan rekk loolu ngay gis ba ci programme yi ñuy tëral programme mu diine yi sax dangay gis ñu koy dendaleeg programme mu caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci pok waaw waaw waxtu wuñ mësaan a jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire lu tooyal xolu jullit ñi léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne daneen ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yittewoo programme yooyu moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi loolu lépp pour xeexe ko diine rek la moo tax yonent yàlla nuux kon yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi laa tazar ala al ardi min alkafirina dayyaara mu ne ko lu tax mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam wala yalidu te duñu jur nag illaa faajiran lu dul ku kàccoor ni ñoom kafaaran ku weddi ni ñoom waaye xoolal yonent yàlla nuux ci mbaaxam nee na rab bi yow sama boroom ixfir li yàlla nga ma jéggal jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa laa tooñ kon nag li ma la tooñ te yëg ko wala li ma la tooñ te yëguma ko yëpp maa ngi la koy jégg jégglu wali waalidayya maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari wayjur wali man daxala bayti muminan ak ñi nga xam ne gëm nanu ma nii na ak ñi nga xam ne dugg nanu nekk nanu ci sama kër te gëm ma te moo di samay jabar ak samay doomi bopp walil muuminiina wal muuminaati ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi waaw ñu daal maa ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal leen waaye nag wala tazidi zaalimiina illa tabara bul dolli mukk yéeféer yi nga xam ne ñu ngi sax ci bokkaale la di jaamu leneen walis la ñoo bu leen dolli lu dul ak alkande bu dolli lu dul illa tabara lu dul ak alkande loolu la yonent yàlla noox ñaan waaye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن, يد أن تذول نيني يالا بيمو تخاوي نك فسيني نانغو ñaanuk yonent yàlla noox daf ne ko defaral gaal gaal googu mu ko wax nag bato boobu mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soo ko defaree ba noppi nga déglu ma ndeke boobu yàlla lim ci namm moo di ne namm naa tawloo asamaan gëqaloo suuf ndoxam pour alak yéeféer yi nga xam ne weddi nañu yonent yàlla noox moo tax yàlla wax yonent yàlla noox ne ko mu déy ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggoo ci ay naqar ak i tiis ci ñi nga xam ne ay yéeféer lañu wasnail fulka bi ayunina wa waxyina defaral gaal gi rek te dégluñu waaye waaye nag wala tuxaatibni fi alladina zalamu innahum muxraqun bul wax ak man mukk ci gaa ñi nga xam ne dégg nga weddi nanu ma di ay yéeféer ndax ñoom ñépp laa fas yéene labal boobu am na lu yàlla di junj ca kanam moo dina yonent yàlla noox doomam doomi boppam dana weddi ji soxnaam ci boppam dana weddi ji te itam it ku nekk e, bëgg nga sa doom ba boo sañoon du alku kon nag comme nag yàlla nee na ko wala tuxaatib ni fi lladina zalamu innahum muxraqun boobu daf ko bëgg attire attirer attention ne ko moom yàlla moo xam kumpa te bu ñu demee ba ci kanam doomam dana weddi nuux commencé ne defar gaal gi liggéey bi nag nekk liggéey bu bett aw nitam ndax mosuñoo xam defar bato ndax dëkkuñu woon ci wetu géej loolu taxoon ñu wet ñu jaaxle ci mbir moomu doon nañ ko sax ñaawal di ko yëj ah di ko wax ne ko yow yaa ngi def lu ñu jaaxal ah joor joor buy defar bato yow dëkkuloo fu am géej dëkkuloo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foo ko jëme ñoom ñépp ñu fedd li ne dof gañ ko doon jiiñ daal moo nekk ci moom mu mel nii yonent yàlla nuux nee na leen yéen ak may ñaawal di ma sabote wante nag maa ngi leen di yëgal ne teng si la bu ngeen sànni ci miir ci yéen rek lay dellusi dana danaa xëy ñaawal leen nii ngeen may ñaawale mu continuer ci fullaam ak faydaam taxaw itam temm ci def li ko yàlla digal te moo di defar bato bi ay doomi boppam ñi ko gëm ak yenn ñenn ci jullit ñi taxaw nanu di ko jàppale ba bato bi taxaw wante yàlla wax na ko ne soo defaree bato bi ba noppi fuur bi ñuy lakkee mburu soo gisee ndox di ball ci suuf na nga xam ne nag waxtu wi jot na yaa koo am dugg leen ci biir gaal gi ndeke boobu yàlla lim ci namm moo di fas yéene raxas àdduna bi ba mu set ci bokkaale ndax moo di li mu gën a bañ te nuux itam ñaan na ko ko ndax moo ne ko laa tazar ala al ardi min al day dayyaara ñu ni bi nga xamante ni defar na gaal gi ba noppi am na sax xam naa ci gàmmukat yi ñu wax ne ba mu defaree gaal gi dañu yebal xale yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ca gaal ga daal fa leen doon demee wanag waaw xale yi daal Eh, ku ci bëgg a dem gannaaw kër fa ngay dem waaye yàlla dogal ba ñu ko defee ba gaal ga tax am benn feebar bu yàlla yebal ci ñoom mu di feebaru ràmm feebar ba nag yàq seen yaram ya mag ñaag góor ñaag jigéen ñi ñépp ràmm koo gis mu ngi wokkatu ami góom góom yi di génne dët am xale nag bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxiis daanu sobe si nga xamante ni laal na yaram wi bu ko faxasee rekk góom ya ca nekkoon wér mu jël nag sobe sa fa nekkoon raax ko ci yaram wi fu mu ko raax rek mu wér mu siiwal xabaar bi nag ne daal moom ay góomam li ko wéral moo di sobe sa mu laal ca gaal ga waa dëkk ba nag ñoom itam daal di mujj daw dem ca gaal ga mujj di tibb sobe sa di ko raaxoo di ko sangoo pour seeni jàngoro wér waaw boobu yàlla lam ca namoon moo di ne lu bon li ngeen def ci sama gaal gi dindi leen ko fi moo tax ñoo ko raxas ba mu set wicc sangoo ko pour seen ràmm googu dañ wante lañ cay dégg rek moo di bañoon nanu yonent yàlla nuux waaye bañuñu ko dëgg yàlla gi rek lanu bañ ba tax na yàlla xëy na rekk balal ndox ci wetu ci suufu puur ba ba mu ko ballalee yoon ci yàlla noo xam ne nag àpp bi jot na mu daldi woo ñi ko gëm ñépp ñu dugg ci biir gaal gi yàlla itam waxoon na ko ne ko bépp rab boo xamante ni maanaam lépp lu am ruux loo xam ne daan dund ci kaw suuf soo bëggee xeetam bañ fee jeex na nga ci jël góor ak jigéen moo tax jël na ci xeetu gunóor yi boo fi gis rekk muy naaw nuux jëloon na ca góor ak jigéen gaynde yi xeetu gaynde yi nga gis yépp jël na ci góor ak jigéen segg yi noonu bukki yi noonu picc yi naaw noonu waaye nag pour wan la ne yàlla soxorul te yonent yàlla noox bu bëggee jël ci rab yi rab bu ne mu jël ci góor ak jigéen di ko jël ci loxo boppam loolu coono la bu dul jeex waaye yàlla dafa amee secret secret yooyu moom la jox yonent yàlla noox ba mu waxee secret ba yemu soxla woon yépp ci ay rab ñëw nañu fekk si ko ci gaal gi góor ak jigéen ñoom la dugal ci biir tubaab sax da koy def waaw téeméeri làmp mu programme leen ci benn contact da ngay bës rek làmp yépp tàkkandoo kon nag benn baat bu yonent yàlla nuux wax mën naa woo la mu soxla woon yépp ci ay rab tabarkal mu mel ni ñooñu la dugal ca gaal ga wax ne ne iblis warul dugg ca gaal ga waaye bi neneen bi bi mbaam di dugg dafa ngoy ca genn ba bi mbaam dugge ba ca dënn ba yonent yàlla noox ne ko aksil duggal mu siisu ndax boobu iblis a jàpp ca genn ga bëgg a duggaale waaw am na ñu ne mu ne ko waaye mbaam duggal donte seytaane nga àndal nee na ci la soog a am nag ndigal lu dugg ndax bëggul woon a dugg ànd ak seytaane te noox joxu ko ndigal loolu itam wax nanu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waaye bi bato bi dawee dafa yéeg ca kaw bato ba waaw duggul ci biir waaye ca kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lépp lu di borom ruux rek keroog lu duggul ca bato ba dee nga ca mën na mu waaw dee nga ca taw boobu wante yonent yàlla nuux am na lu ko metti ndax doomam ji ñuy wax kanaan bi yonent yàlla noox woote ba ñépp dugg moom dafa lànk moo tax yonent yàlla noox ne ko yàbbu na ne yarkab maana wala takun ma alkaafiriin ey yow sama doom te ngaa ñëw ànd ak ñun dugg ci gaal gi te bañ a ànd ak way bokkaale mu ne ko bàyyi sa sa awi ila jabalin yaasimuni min al ma man kat damay yéegi ca montagne bële ndax su ma fa demee mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lab baay bi ne ko tey amul kenn ku mën a sauver sa bopp ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu doom tee ngaa ñëw wante ndeke yàlla xamoon na ne yonent yàlla noox dana am lu ko bett ci doomam ndax yàlla waxoon na ko ne ko inna munajjuuka wa ahlak ñun kat danañ la musal yaag sa njaboot moo taxoon nag mu foogoon ne jabaram du ko weddi doomam du ko weddi moo tax mu waxoon ne yàlla rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka alxaq wa anta axkamul xaakimin yàlla sama doom ji de ci sama njaboot la bokk te itam yaa ma digoon ne danaa la musal yaag sa njaboot te yow yaay àttekat bu maandu bi ba mu waxee loolu nag kon dafa mel ni dafa ne yàlla yàlla dafa dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko woon danaa la musal inna mun na juuka wa ba pare tourné nag bàyyi doomam weddi soxnaam weddi yàlla ne ko Eh, bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret ndax abul maana aqwa min abil xis kon nag sa njaboot mooy ñi la gëm waaw ku la gëmul doonte yaa ko jur ci sa ndigg sax nekkatul sa njaboot mook jàmbura yam ci yow motax yàlla ne ko wala tuxaatibni fi lladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa baay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa baay da ngay bok ak mom pas-pas ndax mu man la jàppale ci mbaxam yàlla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yàlla noox yàlla jéppi na ko ba wax na baayam ne ko bu ma wax affaire am mu ne ko itam yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalix fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni aiduka an takuna min aljahilin yàlla ne ko yow nuux kii du sa njaboot ndax jëf ju bon la doom ju amul pas-pas bu baax la ab yéeféer la te kat maa lay yëgal ne bañu lay may bañ lay may ndeyam dañ la ko mayoon pour mu yàq diine ji waaw yàqal la moo taxoon ñu may la ndeyam moo tax jigéen bu ciy sëy na ca duggee yéene bu rafet yéene bu rafet ci sëy dafa baax ndax innamal amalu bi niyaat waaye diw am na xaalis naa ci dugg waaye wala diw rafet na naa ci dugg loola lay tax a sëy rafetaay ba dana xëy dem alal ja dana xëy dem su ko defee nag ah nga daal di jaaxle ndax la la ca taxoon a dugg gisatuloo ko waaye bu fekkee nag jaamu yàlla rekk la ci taxoonu dugg bu fekkee ne eh, sëyte yàlla tax rek moo la ci taxoonu dugg yàlla jooju doo ko ñàkk ba mukk moo tax yonent bi ne innamal amalu binniyaat ndeke boobu xale bi ak ndeyam yépp xale bi bi ñuy may nuux ndeyam booba lañu ca namoon moo di ndey ja mën a am fu mu jaar ba yàqal nu woote bi nga xam ne lislaam bu wér la yàlla teg ko ci loxoom moo tax itam doom jancu jamu ci am nekk doom ju moo tax yàlla ne ko kon maa ngi lay waar di la jàjj pour rekk nga bañ a bokk ci ñi xamul dara di wax lu ñu xamul dara kii ak ndeyam baaxuñu waaw moom la yàlla wax ne ñaari jigéen ci histoire baaxuñu te seen jëkkër baax moo di jabaru yonent yàlla loot ak jabaru yonent yàlla nuux mi ñuy waxtaane mu mel ni kon yàlla yedd na ko fi waaye nag dañu wax ne bàkkaar bu ndaw ci ab yonent bàkkaar bu mag la xasanatul abraar sayiatul mu sayiatul muqarrabin mu mel ni yonent yàlla nuux dugg na ca bato ba ndox ma ba mu ñëwee doom ja montagne bu gudd ba mu yéegoon ndox ma dépassé na ko fukki kilomètre ak juróom ba mëdd ko ñu ne bu yàlla doon am yërmande kon dana yërëm jigéen ak doomam ci bis boobu boobule ndax ndox mi ba mu ballee da gis jigéen ju yor doomam daw yéeg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba dégg nga jigéen ja yëkkati doom ja ne moom na dee ngir doomam mucc ndox ma ñëw ba ci boliga yàlla keroog bu doon am yërmande kon foofa lay yemale ndox ma ca boliga mu wàccaat ba ngiis ba jeex ngir am yërmënde ci doom ak waajuram wu jigéen woo xam ne yéene wu ko dee waaye keroog ndox ma dafa ñëw ba mëdd jigéen joojule continuer ba mëddaale doom ja ñoom ñépp ñu ànd ca mën ma faatu moo tax ñu ne yàlla ne fa fataxnaa abwaaba alsamaai bi maa in munhamir wa fajjarna al arda uyunan faltaqa almaau ala amrin qad qudir yàlla nee na maa gàquloo suuf ndoxam nee na maa tawloo asamaan ne ko li nga am ci ndox wàccee ko moo tax keroog ndox bari na ci kaw suuf nee na lépp lu am ruux keroog faatu nga dégg nga ci taw boobule ñu ne itam يننتي الله نوح عليه السلام